wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan seen télévision seen TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di leen baal di ñaanal suñu directeur général Hadji Bougane di ko nuyu ñaan yàlla dolli ko jàppale dolli ko sutura dolli ko teraanga te dolli ko ndam te sàmm ko sàmmal ko njaboot gi